Senclic yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyikoo ko jàngin jëf. ñu ngi ñu képp koo xam ne teew na fii tey ci bis bi ñu ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci kaw comme ni ko Saf Ndiaye di waxee ñoo nekk ŋànk mbirum diine bi pour ñoom daal ñoom ñoo yor mbirum diine bi ñun politiciens yoruñu dara. heure boo demee ci conférence en grand Moussa heure boo demee ci conférence rek ñu yor conférence bi dañaa naan ñun ñu yor ngànk ñu ñu yor ñu ngànk mbirum diine bi ñu ñeneen ñoom ñooy ngànk mbirum àdduna ñun tamit ngànk nañ mbirum diine de dañ siy jëm de dañ si jëm ñu ngi sant di la gërëm fii ni ngay jàngale ak ni nga koy doxalee vraiment ñu ñu kontaan nañ si nga dëkk si gox comme ni ma wax ci xaadim rek dëkk fi gox màgge fa yaroo fa ñuy conférence woo la kon bu ñaawoon démb di nga am problème pour toog kon démb rafetoon na kon loolu yaa leen fi jàppale ak suma mag Moustapha di nuyu suñu mag yi suñu yaay yi suñu papa yi toog fii di fekkee bisu conférence bi tey di nuyu suma mag Moustapha ñun nag dañu kontaan donte association bi moom moo organisé te association moom xam nañu dafa apolitique mais nag si cadre solidarité ñun bu fekkee ba ñuy tàmbalee politique dañ taxaw fii dañ ko tàmbalee fii waa koñ bi génn jàppale ñu solidarité kon bu ñu demee ñoom ba samp mbirum association tuddee ko solidarité ñun war nañ ñëw taxawaat jàppale leen solidarité te dem gisuma man lu gën solidarité gisuma ko boo amee ñu wax ma for na seet naa mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak yonent bi sallallahu alayhi xeex jaamu yàlla ñu naan mooy buntu xam-xam te pourtant jëf ji nga xam ni suñu borom dugal nag direct àjjana solidarité la Cheikh Khadim laa nuru jitaan mu ngi ko ma la shukuran solidarité la te pourtant am na yenn action yoo xam def na ko mais action bi mu def ba suñu borom dugal ko sa àjjana rek solidarité la te suñu borom nit mën na nit mën na la may xaalis nit mën na la may kër mën na la may lu nekk mais am na loo xam ne doomu aadama moo ko mënal boppam cër sa yàlla cër si suñu borom kenn mën na ko defal yaa koy defal sa bopp te pour nga am cër suñu borom foog suñu borom bëgg la te suñu borom mi ngi bëgg ak jaamam tànk que mi ngi am possibilité di dimbali mbokkam di ko dimbali donc yaa ngi si yàlla xiir ñu si yaa ngi si yàlla jàppale ñu si ñu ñaanal association bi nga xam ni fi ñu teg seen tànk foofu la ñu ñaan yàlla may leen si ndam ñun nag ñu ngi si biir ñu ngi si biir te jiitu nañ si te nag euh, almaxtum macha allah mais ñun sëñ Babacar dañ koy noyee ndax ñun politicien nga tëdd ba guddi sëñ Babacar yee la parce que sëñ Babacar si sëñ Babacar yee la ni la yow aadama jugal te jël jël wérdi bii di ko wérdi kooku macha allah sant yàlla rek. en tant que politicien donc bu may tudd sëriñ dama naan sëriñ sama sëriñ sëñ Babacar si waaw non sama sëriñ sëñ Babacar si am na yu bëri yoo xam ne dund naa ko ak moom sëñ Babacar si bu ma ko waxee sax am na ñuy tudd ni bokkaale la moo tax damay préféré noppi rek bu ma demee sama kër booy dugg sama kër ngan dim foto sëñ Babacar si laa fi def te pourtant damay politique am ñoo xam ne ñi ngi ànd ak man ñi nekk murit ñi nekk laayeen ñi nekk xaar ñi nekk leneen ñu àndi politique mais man fi ma féetee fii la sëñ Babacar Si ku nekk na wane fi nga féetee nga ànd ak moom ñu ànd liggéey sunu sunu senegal ku nekk mën nga far fi nga far ndax li ngay yëg moom li nga ñam moom rek ku ñam rek moo ko xam ku nekk na far fi nga far nga gëm ko nag respecté sa bos respecté bu doomam bu borom bu keneen kii ñu ànd nag liggéey sunu Sénégal ndax Sénégal gi ñun ñoo ko bokk loolu mooy jëmee réew mi kanam man gisuma luy avancé loolu réew te bokkul solidarité sunu borom moom moo bind te emelewul bu dee ségrégation kay moom moo ko njëkk def mais naam da daf ko def pour ñu dimbalante ku nekk bu amoon alal kon gudd gudd fan du am parce que ñi war a bay duñ bay ñu war a liggéey duñu liggéey ñu war a tabax duñ tabax ku nekk dafa am fekkee ku nekk am na lu ñu gàññ di toog ñu lay liggéeyal kon doo gis ku liggéey parce que ngay sant mu liggéeyal la kooku tamit am na lu ñu gàññ équilibre mi ngi am bu fekkee ñii am nañu ñii manqué le nañu ñi am dimbali ñu manqué àdduna doxe noonu équilibre am ñu ngi sant gërëm ñu ngi def sunu suñu sunu sunu caution sunu soutien sunu wareef la lii lu ñu xeeb nag montant bi jarul wax af am na ko mu ëppale sax am na ko mu ëppale boo amee rek ma dolli parce que man bëgg naa yaa ma ëppale ñu ngi kontaan nag si taxawaay association bi ñun tamit incha allah luñ si mën rek dinañ jëm def ko si ñu ñaan yàlla jàppale leen yàlla barkeel lépp sunu koor yàlla nang ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim seen clic yéen ñi aboné gul aboné leen gaaw activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jaa